fa tabaarakallaahu yàlla dogal nag mu tànnoon dëkk bii di dàq seen def ko muy dëkkam fa tabaarakallaahu sunu bàjjana ñuy wax léegi nañu fu mënoon di wër day dellu si ci jàmbaram ji maam alxaaji Adama seen ci néegam bii dana fi def lu man ñetti fan ma ne ko kon dafay tànn dafay tànnoon yàlla dogal nag bi may sélectionné muqaddam yi maam xalifa wan biddiwu bëccëg ak ñim wane ñu mel ne biddiwu bëccëg yàlla may chance alxaaji Adama Sène ma dugal ko ci biir xasida ba te ma doon jël man douzaine rek laa doon tànn fukk ak ñaar ci arab wolof bi nag yaatu na mat na fanweer ak juróom mooy làmbi soo daan jaaxaaj Omar doon yëkkati léegi waaye ci fukki yeeg ñaar man du ko tànn ci lu koy maam xalifa muy arab yàlla may na maam alxaaji Adama Sène mu bokk ca biir fukk ñaari sélection yi ma def danaa ci nekkil ñaari bay joxe micro moom bi ma yegsee ci moom dama na wasal bihi aadama seenin la daa bawalin adnaa la minhu kunuusan waabila téemi moom la bàyyi aadama seen moom ci way wi dama na boo bëggee xam xalifa ña laaj ko maam alxaaji aadama seen mi nga xam ne ma nga dëkk ca bawal moom de am na ci maam xalifa trésor kunuus laa utilisé mooy jam lu kenn ay trésor yoo xam ne waa bi la diyami yuy sotteeku di dotteeku la ñu bari dañoo réeree ne maam Alxaaji Adama nguur ak Souleymane gi ko maam Khalifa jaay te moom laa wax ci lambi soodaan waat ku wekk laaj ko Adama seen gaañe waaye ñëpp doon seen ay mbiram ku ko xam-xam ne sa duwul neen Khalifa ñi sa ko ñaanal nguur ak mooy alal ak wërsëg bu ànd ak limaan laa wax ci lambi soodaan loolu mooy lan Souleymane yëpp di maam Khalifa doon wax ni ngi sama loxo Cheikh Tidiane jox na ma ko maam Alxaaji Adama muus ba ñëw ne ko jox ma ko ñu ne ma Souleymane yëpp dugga mooy lan ma ne leen mooy alal muy koppar yuñ mën a làmb sëy mu mën muus waaye ak wërsëg wërsëg moom ëpp na sax alal waaye nag non seulement mu ci particularité te mooy bu ànd ak liimaan maa yëg ne alal lu garaaw la bari na ku denc sa alal te fekk na bu ëllëgee la koy ñaase jërëjëf alquran naan mi ngi naan alladina yaknizuna wal fiddata summa la fi sabilillahi yàlla ne waa fa bashirhum bi alal danger la maam nag bi Suleymaanu ñëw yetu ñëwee ci loxoom ma ne alal jaw ak wërsëg wa liimaan lay moo tax maam Alaaji Adama toog fii nekk multimilliardaire te boo ñëwee tiim ko doo foog ne sax junne neer la loolu moom am na kum doon doon da ngay ñëw fekk ko mu bew ba ca kaw ba kenn du ca jóg te moom boo ñëwoon ci moom da ngay day mel ni benn waay rek fa tabarakallah loolu nag moom la maam xalifa radiallahu taala anhu defal maam alxaaji Adama Sène maam Adama àggoon na ci barke koo xam ne fa tabaarakallaahu ci barke mooy wërsëg bi ma wax ba kuy jaay boo bëggee mu jar dang naan lii cee lool aadama seen la la bu dee ay ganaar nga bëgg ganaar yu barke dang naan ganaar yi aadama seen yaa ngi ndax léegi tey ñu soqatoo ko ci marché bu mu jeex léegi tey boo bëggee dugub ci dugub bu baax dugub ak gerte ci jiw bu baax dang naan dugub bi aadama seen gaa ngi wala gerte gaa ngi ñu soqatoo la ci marché bi loolu lépp ak te mam moo tax fa tabarakallahu yàlla mayoon ko moom maam alxaaji adama fa tabarakallahu mu jëriñoon ñaanuk maam xalifa kon nag yéen waa dànk kenn ëppale wu leen ci yàlla dogali nag fa tabarakallahu bëri na ci bawal gii dëkk booy dugg waaye fekk fi ku sant ña maam xalifa rafaatal leen ko mu nekk fii bi sunu bàjjëlu bopp ajaa ndey sëbi yàlla mayaat leen sunu maam maam daaw seen وتبارك الله يلا ما يكو توكي موري ما مام خليفة دفون فوتة تب ماي سيليكشوني باسي دبي ما واق واق فوتة أم نانتي نيار تدو نالين نيوم سن دك بجي بوبم تدو سن بوم كلمة مام تسير مصطفى جام دهنينا وصل به فوتة لما شد حالهم نالوا به الرفق للأشواك والإلمين مام خليفة بقو بقي خم laaj ko waa Fuuta wasan laajal bii ci xalifa ñes Fuuta damaa xasal ahlu Fuuta jàngoo ci alquran wasal bii qaryata allati kunna fiha jàngoo ala qaryatin la woon lu xasal ahlu ja ndax dañuy wax ne luñ xam nga xasal ko dagan na wa xasfu maalumin jaizun ba kay loolu la man xalifa utilisé moo tax ma jóg may na fasal bihi Fuuta loo leen di laaj lan maa shadda xaaluhumu ba seen ba seen mbir taye ñoom waa Fuuta Danaaru am nañ bii ci maam xalifa ar rifqa yolom yolom yolom nga lan la li ashwaat yi ci dëkk yowoon ca dancaat wal ilami ak ilam jawoon ca maatam damaa la ngaa am taj mu bëy ñoom boo demee seen ndox mi ilam lañ koy wax maam xalifa daa dugg biir Fuuta wàcc dancaat yi daña sant sàll fa tabarakallahu tey barke nañu ba seen doom ji mooy garde des sceaux Hadj Malick Sall yàlla ko yàlla dolli wér mooy ministre de la justice tey ma nga dëkk ca dancaabi way juram ca Hadj Babacar way juru sang bii moo ko jox wér na waaw ñooñu ñu barke lañ maam xalifa dana cëpp ci dëkk bi na leen lu ngeen soxla ñu ne ko ñun dégg dégg la bëgg mu ne ah waaw ñu ne waaw mu ne nu ngeen di doyee de ñoom maandu ñu ne ko ñun de ñas dañuy bay ay toogóor ay tool yi dër yu wër gannaaw kër gi te dëkk bi dafa bari bay te bay dafa mën a yàq àq jooju lañu ragal moo tax bu ñu amee taxas bu ñu ko ñagee jardin yi fa tabarakallahu bay yi doon di yàq ay loolu jàmm naa ñaan gis nga tey boo demee ci dencaat yi utukaay yi dëkk ci Fuuta mooy dencaat yi ñaar yi yëpp ay dégg lañ ñoom seen garab yi kër yi sax fam luñ ji mu dee dégg lañ mën a ji mu dund kooku mooy maam xalifa ñi mu ca peelu da peelu te buntu kër xafsatu mariam xafsatu mariam moo doon doomi maam mariama taal doomi cheikh omar fuutiyu taal ca oropon bi suul nañ ko fa lu yàgg moom mariama taal maam mariama doomi cheikh omar dëkk ba raaf mën mi ñëw yóbbu dëkk bi bàmmeelam ba réer bi yàlla nag ne bàmmeelu maam Mariama Tall feeñ maam Xalifa la yebal na ko demal waa de am na sang bu fa nekk demal nga feeñal ko maam Xalifa ñëw toog ca buntu kër sët ba Xasatu Mariam jaaxaat na waa Fuuta bëgg Tafsir Moustapha ne yéen waa Fuuta Ñas ne lu bëgg ñu ne ko ah Ñas ñun dee ñaar suñu yitte la mu ne leen ban ban ñu ne ko ilam mbënn mi danaan ndaw ba fi waaye ay ñaar fukki at ci ginnaaw lañ ko fi daan dégg gone yii daal xamuñu mën na moom moom maam xalifa ne leen bi amdullahi ruquudi yàlla tafsir Moustapha mun na ko ñes mun na ko waxal ni suñu tànk yi dee dëng na waaye fuñ ko dëgg wàcce fa barke de nee leen fii ma teg sama tànk bi Cheikhu Tidiane dina bee ndimbal na mi de maam tafsir Moustapha wax loolu tukulóor yëpp jug ja taxawaat xoolaat xalima toogaat xanaa loolu moo di ko weddi bàyyi papa ne ma Tafsir Moustapha na ko ñes ñeme maa wax loolu mun na ko xalit Tafsir Moustapha ci wàllu ci wàllu waaw góor gi ñëpp ñëpp ko wax ci ci ci tukulóor ndax foogut ne dana mën a nekk moom moom Tafsir Moustapha na ko loolu dama ko mën a jottali ndax xam naa ne ñii man man gëm naa ko waaye ñii dañ ko gëm dama yore dee àll mu ne ko wax leen ne dana si fii ma toog laa wax ba mu demee sëñ bi ne matul semaine moo ma ko yeggali mbënd ma yegg ba yegg foofa gis nga maam xalifa ba mu tegoon tànkam ba ba mu fa jógee tukulóor yi dañoo ñëw samp fant ba ne Cerno Joor si ko xaali de sëriñu wolof bi waxati na de maam xalifa wan leen gannaaw mbënd mi daw ba ñëw ci bant bi ci yoonu njëkk wi xaajale bant bi muy point départ bi gaal yi fii la ñuy départ ci bi sëb xalifa sampoon ñu naa ah, lii leen mbir la fekk lu jiitu loolu nee nañ ko Cheikh Omar amoon na fi doom ju jigéen ñun koy dégg rek dëkk bii di war a fonde sañcoon nañ ko mbënd mee ko raaxoon maam xalifa ne leen ngeen ni ñu ne waawaaw mu ne leen bu tàkkusaanee ana baaxali Diouf mu ne ñes mu ne ko buñ julee tàkkusaan ngeen topp ma si kar julli eh? rek topp maam xalifa mu dox jublu ci penku ba mu mu jublu ci xàkku dox tuuti ñaadam ñaadam dugg ci genn kër na ci kër kan la ñu ne ah bi dañu mu ne puus leen ñu puus mu wëndeelu ñëw ci daaju bay bi ne leen tànk yaa ngi nii bopp baa ngi nii duguloo yu xoolante naa mu dem ñu gas ko fekk ndaw tal perkal bi li ko sax wu li tabax ba di ko ku ma nga karaama moom ku leer nañ xalifa ñes rek ñu baree baree bari karaama bukki lañu yore xam nga karaama bukki mooy lan bukki daal génti géntu bu rëy ñëw ci tëgg ba fekk ko muy muy tàngal ay weñam mu ñëw sóoru ci moom na ko mën de sama gént gi rëy na de mu ne ko loo gént mu ne ko saaku bu rëy mu ne ko lu ne mu ne ko ah yaakaar naa ne ñax la de ah mu ne waaw mu ne ko ah bukki yow sa gént gi baax na sangu bu rëy bu def ñax mu ne waaw mu ne ko ah kooku kooku yàpp la yow da ngay dajeeg léegi nag bu dee léegi nga tim ci yàpp ba doyal rek bukki na ko ngay mu ne ko waaw mu ne ko ah ba do baax tuti tuuti wàññeeku waat ñëw ne ko mais géntaan naa nag de mu ne ko loo géntaan mu ne ko saako boobu boobu nag li moom est-ce que na ni pajaas mo bu rëy sax bu rëy rëy rëy ñax mu bari nit dëkk bi teen mom mu yàgg xool ko ne ko loolu de dee la mu ne ko mais boobu dama ko mbass dalu sama kaw quoi mais nag ñu bari bari taarixu bukki maanaam karaamay bukki lañ lay nettali maanaam kéntal bukki googu da ngay dégg wax la rëy waaye boo demee doo fekk dara waaye xalifa moom tànk baa ngi dañ naa la tànk baa ngi sàcc baa ngi maam xalifa Ñas radiyallahu anhu loolu ko yàlla may moo tax sànq bi ma waxee na la fuuta dem fa moo tax may mentionné ne wasal bihi maryamul mazura qubbataha tum bika minhu umuran jalla am fayini ma maryama fa tabarakallahu mbokk yi dafa guddi de buñ jàpp yàggoon nga war a feeñ waaye damaa bëgg takkusaan jii daal nañ koy def benn conférence rek ndax sang bii Cheikh Hadj Ibrahima njàpp gi mu fi tàmbali woon bu yàggoon rek ngeen gis mbir waaye nag waxtu wee boo xataloon kon takkusaan ji nañ koy def benn conférence yi ñun ñëpp nag dañuy ñëw ñëw toog déglu ndax damay wax ne fukki chauffeur ci benn kaar ñëpp ami permis mën nañoo doyloo kenn mu dawal ah te ngi réere ah jaay <laughs> wala bokk waaw kay su ko defee nag kon fa tabaarakallaahu kooku lañ koy dagg ba beneen yoon insha allah buñ dajee waatee wax leen xalifa ak yi mu def ci àddina bi xalifa ak li mu def ci xam-xam xalifa ak li mu def ci ay xarbaax li mu def ci ay karaama fa tabaarakallah suñu xalifa gërëmaat nañ leen bu baax a baax santaat leen ñaanalaat leen yàlla dolli leen ak ndax dolli rek lay doon tumuraanke tumuraankew leen xam-xam saa gi nii toog boobu ba fa tabaarakallah ni muy doxalee xam ngeen ne borom xam-xam la sunu mbokk Babacar fi jàng alxuraan bi neex ci sànq kon yéen tumurànkewu leen dara jëgganiwu leen dara xalifa defal na leen lépp mànkoo leen ngeen booloo bi ànd ak jullit ngeen def na yokkal waaye damaa lànk <laughs> su ko defee na booloo rek ngeen def benn say ngeen takkatoo ngeen nekk benn maam xalifa day yàlla may na ko seen sëriñ bu baax ba dégg ngeen si xaaj omar léegi li mu wax maam xalifa yàlla da may mu nekk universel dégg nga ko diwaanam bi boo fi demee ñëpp la ci tagg waaye moom it ñëpp ko tagg ndax wax sa mbaaxuwaay du wax yàq ci sa mbaax daal maam xalifa ba mu yëgee ni mbaax am na la ko dénoncé ndax mbaax rek am solo moo tax murit yi ci dëkk bi fa tabarakallahu ni ñu mel ci mam xalifa dafa yéeme kenn xaru leen a sopp mam xalifa gis naa leen ñu ngi ciy ñeneen ñi ci leen bu yàgg na ngeen def ñoom mam xalifa ne woon na sahabatu cheikh fi mawaddaati وفي التعاون كونوا والمؤاخاة نالا نعم. واي يلوا طريقة بيش لا يوحل نلين نجن نك تسوكنتي نجن نك تبقنتي نجن نك تسوكو نحسن سري شخص جاني وخل نجن بولين دي لورانتي نحن ماما ميلت عليه الصلاة والسلام لو كنتي نكو بخل ستالي بي نلين بون لورانتي نح بون ما يتكبر فيما تتسوكو kon kay fama baalukum seen yéen ngeen ngeen war a ànde kon yéen waaru biir ngeen su ko defee noonu ngeen def ànd takkatoo nekk benn mbokk jullit yépp xanaa bu ngeen bokkutoon sax l'islam bi yéen a bokk seen askan wii du seen loolu rek loole na leen kon na ngeen sax ci loolu na ngeen loolu na ngeen tàllalantey loxo bu leen nangu ku leen féewale ànd leen nekk benn ndax yàlla kat wax na ca ca saar wa ni man yàlla maa leen bind ngeen di ay giir ak ay kuréel ak ay xeet waaye dama bëggoon nag mooy ngeen xamante yaa ayyuha naasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsan wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu bit bi li taarafu rek la ngeen xamante mu des nag maa gën diw ak maa gën diw maa gën diw posé yàlla ne ma déglu leen ma man man mi xam ki gën inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen daal mooy ki ma gën ragal man yàlla ki gën ragal yàlla nag moom nu koy xamee ndax àddina ñett a fi ki nga mag yow ak ki la mag ak ki nga maaseel ñett yi rek ñoo nekk ci àddina waaw yaa ki la mag kan moo gën yaa ki nga maaseel kan moo gën yow booy jàpp jàppal ne ki moo la gën xam tax da jàpp ne moo la fi njëkk te moo la ëpp yool lim def ci baax defoo ko lim wax ci lu baax waxoo ko lim am ci amoo kon moo la gën boo jàppee loolu waaye ki nga mën di jàppal na moo la gën ndax moom mii kat li nga def ciy bàkkaar defagu ko li nga wax ci lu bon waxagu ko li nga fi def ci safaan defagu kon moo la gën ki nga maasee li jàppal na moo la gën xam nga lu tax yéen a maase te xamoo leen def ci aw yiw xamoo leen def ci lu baax xamoo leen def ci safaan te yow xam nga li nga def ci lu baax ak ci lu bon kon jàppal na moo la gën bu àddina li yàlla lakk ne inna akramakum inda allahi atqaakum loolu neex naa dégg yéen bi alayhi salaatu wasalaam nag mi nga xam ne mooy imaani jaam ñi bu daan wax day wax ak taqwa haahuna taqwa taqwa yàlla ni ci li ñuy gënantee wolof di ko léebu naan nit li muy gënee nit buy sangu du ko summi ne taqwa ragal yàlla boobu mi ngi ci suma biir xol bi kon kay mi ngi junju mbóot na taqwa dafa xóot dafa dugg ci biir kon nag mbokk yi fa tabarakallahu guddi na te waruma woon a guddal ñoo ngi dem ba tey ñoom Omar dañ ñoo jiituwaale waaye ñun ñoo leen topp léegi tax ma bëgg a dagg foofu yemale ko lu dul jeex daal jël ca lu yem jël ca la nga moom dem loolu mooy li nga xam ne moo ci am solo te li li fi ruus yëpp doy na tàkkusaan ji moom yàlla nangu na ko ba pare ndax li yàlla bëggoon am na ba noppi mooy dajoo bii ak sañ yu rafet yii ak fa tabaarakallaahu jaagar jaagar jiit indi seen wàll sànq sëriñ bi wax na benn waxu am solo muy xaj euh, bàyyi daam ci yëngu mi fi gis xam naa ni dafa am lu ko dafa miirul bawal xamul fii waaye ñun ñi xam fii xam nañu loolu ak bawal nag waaw waaye loolu li wax dëgg la sunu kër ñeseen moom dafa am rek lu mu bindoo waaye it fa tabaarakallaahu am na leneen nit lu am mooy yëngu bi bu fekkee ne yàlla la kenn du ko mën a bay ndax am na ci saxaaba yi saxaaba boo xam ni yeneen xool xool na ko rek na ko yow yaa ma gën a mu jóg rek dóor poñ ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kontaan waaye nag du fekkum programme nag moom a ci ñuy wàccat ndax moom dañ koo bett rek dóor ko ko mu jóg rek moom takkase moom xaw ma nag yéen noonu ngeen ko yëgee ngeen di ngeen takkase bu dul loolu nag dinaa leen a gis moom bu dee noonu ngeen ko yëgee nag aayul waaye nag ñu xool ku ne ndax alquran day wax bal insaanu ala nafsihi